dañu fassiyene waxtane moy li nga xamne mom lañu bëgg def muy actualité ci jamono ji lu ne ñu ko ci wax lu ne ñu ko ci bind muy convocation bi nga xamne convoqué nañ mako ëlëk ëllëg bu soobee yàlla ci midi moo war dem jakarlok doyen des juges ñi sant yalla bi convocation bi amé ndax

dafa am lu mu ànd ak lu mu ànd ak mooy nee nañ dañ maa def ci contrôle judiciaire mooy samay sañ-sañ dañ koo wàññi mënumaa tukki daanaka looloo ci wàññeeku waaye maa ngi dox samay soxla di dem fu ma neex waaye mënumaa génn réew mi diggante boobu léegi lu ne xew na fi ndax def nañ fi ñaari élection ñaari élection yépp ma nekkoon ci candidat jiite ay liste ngeen wóolu ñu yéen sénégalais yi ñoo ci ndam goo xam ne amul na table waaye ba tey wooguñ ñu woon pour wax ak ñun kon bu amee dañuy sant yàlla fàttaliku leen ay weer ci gannaaw def naa fi benn émission ak ay journaliste demoon ba ne leen fii leeg moom doyen des juges woowu ma déglu ma dootuma sax signé kaye bi te noonu laa ko doxalee woon moo tax fan yi mu demee ba jàpp dat ba ñu yëgal ma ko laa dem def la ma war a def ku tolloon foofu xam ngeen ni moom yàkkamti woon na da ngay dégg euh, waa boor bële suñuy wax bëgg a ëlëmal xelu Sénégal yi naan waaw li tax muy daw moom na dem uyu waaye man duma ma convoqué sama bopp doyen des juges moo mën a convoqué mënumaa xëy yenn samay bagage dajale samay avocat ne maa ngi dem tribunal kon su yéexoon ci ñoom la yéexee waaye ñun lii lu ñu yàkkamti woon la am na tey lu ne ñu ngi ko ciy wax may dalal xelu Sénégalais yépp amul lu gën a ordinaire lii bu ëllëgee bu soobee yàlla dinañu xëy dem jàkkaarloog doyen des juges wax ak moom li ñuy wax ak moom ñibbi si fanaan suñu biir kër fii ak semaine prochaine ñu woyal incha allah suñu dox dem defi suñu nemmeeku tuur ñi naan ay su demee dinañ ko jàpp ak dinañ ko lii ak dara amu ci dama leen yàgg wax ni dossier bii du dossier boo xam ne dañ ma ci jàpp wala dañ ma ci tere nekk candidat dinaa ci dellusi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 bali li ci juddu juddu ci damaa jógoon di wuy juge man musuma ne du wuy juge dama bëgg ñu déglante bu baax mbokku Sénégal bi ñu njëkkee ne ma da ngay par force man leen du nama ndax dama am immunité dama am mbalaanu kiiraay boo xam député bu ne da am te tank tànk teggiwuñu ko gendarmerie mënuma convoqué donc du dem section recherche Lolo andi woon coow li bi ñu ñëwee ne dañ may jël yi taxaw ne du fi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 même ñi nga xamné ñi nga ci formation nek fatik. jëlé na fa douze escadrons neuf personnes mu jëlé ko fatik ci xalé yo xamné paré guñu sax formation loolu moy andi manifestation bu amé yenn jéye di am ndax kuy formé wu gul mokalagul sax nu ñuy yoré arme nga jëli ko andi ci lo xamné audition kese la mi ngi mel Sénégal fi ni mo nii moo raw Mogadiscio mi ngi melni guerre civile la ñu nek ci ab Ousmane Sonko.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

même bi problème yi di am daaw ji man woowuma kenn ne ko kaay gunge ma moo tax kenn mënul génne seen affaire u tappale ñu doon def naan trouble à l'ordre public luñ ma ci dara ndax mosuñu maa gis ma def déclaration ne gars yi ñëw leen gunge ma bañ ma bëggee bu ci njëlbeen ba kay laa ne woon sama droit à la résistance ndax constitution moo ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu lànk résister waaye bi ñu jaaree fi ñu jaar ba ne levé nañ immunité damaa jóg dem damay wuy ji kon suba li may ñaan nit ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem kër Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fii walla fële audition man maay dugg ak samay avocat jàkkaarloog juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër loolu jarul génn moo tax ma leen koy ñaan ndax xeex bi xel a koy xeex xeex bi xadar xeexu ko xadar mooy mujj ci xeex bi waaye li koy jiitu xel la ñiñ ko seqal nag dañoo jàpp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amuñ dara dara dara ci dossier bi waaye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xër trop tàbb ci ñu mun a génne dossier ci biir dossier bi wala mun ñu mën a jaare foofu essayé naan dañuy teg loxo ñenn ñi te loolu jaru ko loolu mu ngi suñu kanam dinaa ci ñëw moo tax ma ñaan leen ne leen lii lu banaal la gàcce lay doon ci moom mu dajale li ñu am yépp ci sandarme ak alkaati ñii mu jëlee leen ci région yi fu ne yàq xaalis bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñëw ba fii ñépp dëdd ko romb dem def doxi seen soxla loolu mooy doon gàcce gi moo tax ma ñaanaat ko ak kum munti doon ëllëg du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñépp doxi seen soxla kudul amul soxla na nga toog sa biir kër ñu dem defi suñu audition ñibbisi te bu ñu ñibbisee dinaa dellu si waat ci lu yaatu la def benn point de presse waxtaan ak sénégalais yi nag ci dossier bi parce que foofu la ñuy toll après bu ñu ñibbisee dinaa wax kañ la dajale ñépp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xam complot bu ñàkk fayda ba ay kilifa yu mag a mag a mag ci réew mi seen loxo takk ci rip te ñu am ci firnde loolu lañu ñu eh, jàkkaarloog fu mu toll nii loolu yeggaguñ ci li am solo mooy suñu demee def suñu audition ba ñëw nañu seetaan suñu gaay fu ñuy mujje nañu seetaan fu mu bët bët di mujjee gi wante wandentam ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee looloo jafe ma baamuwaat neleen leen bii bi mënuma cee dem kaso dossier bii mënumaa tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci loolu la bëgg a jëm lii ngeen di ruumanaat li leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeexe waaye du léegi moo tax ma ne leen bu leen yàkkamti jamono jële def naa benn live ne leen xeex kenn du ko xeex te ñoragul te ñoom ci seen stratégie ci loolu la ñu ne waa ji xam na ni jeexal na takk takk takk biir njabootam sax tas na mil lu dul ñi muy fay xaalis ñuy wër ci télé rajo yi di saaga amul kenn kuy nit ku baax koo xam ne tey mi ngi ci biir njabootam Sénégalais yi dëdd nañ ko wan nañ ko gannaaw te ñaari élection yi fi weesu passé na ko ndax ku jugee kat 65 pour cent tey nga nekk 45 pour cent xaw ma 46 pour cent jeexal nga takk ci réew mi